wante demb li xew doy di analyser les résultats sama un agent de sécurité qui ki officiel ci affecté en tant que ministre moo fi nekkoon ak quelques femmes yu fi nekkoon vers heure yooyu dégg rek bum un bruit assourdissant ma nous sommes nous permanence Nous Nous ay xeer ñu dégg Nous ci jol yi ci dal lu parce que tout nañu monde ba dugg ci en masse bay waaje yéeg escalier Nous fekk ñu ci ah, ci kaw ah agent de sécurité qui est un officiel, un agent assermenté, un un pistolet def tirer des coups de semence semence madame ci kaw bi ñu ko déggee lañu lañu daw reculer mais dañu reculer songaat songaat di années, di toj dix ngeen dix ngeen ko je pense que la presse euh, vous avez vu xeer yaa ngi nii qui etc. J'avais laissé ça pour les besoins du constat du l'huissier. Mais lolo, nous devons voir. parce que élection ça ne veut pas dire violence. avons gagné nous avons gagné ña ngay toog di analyser seen résultat fait fekk leen fa romb avec beaucoup de monde ça ay pas pour toute permanence on a la chronologie des faits hein, on est ça on a tout ce qu'il faut pour montrer Birminan la demain. on a ça parce qu'après, après dañu wax de ville pour en tout cas pas au moins moi même pas au courant de tout ça c'est après plus tard que lañ ma ko wax donc la chronologie les faits kon xanaa dañoo yàq fii ba pare ñu soog a def loolu foofu ak kan moo ko def foofu question ma suñu xalaat ni nit mën na jóge fenn ñëw di saccager ay permanence boo xam ni wóor na ne bi ngay ñëw xam naa dañu xool xool ni fii daanaka kenn nekku waaw parce que daanaka kenn nekk foon ñu def mais ñun ñu ngi woon ci kaw fii ci étage bi ñu nekk donc loolu jaaduwul nag ñun nag constaté nañ ko te avisé aviser dañu naka la situation